parce que ce qui l'avenir c'est nous demain c'est nous Moi, je suis lii nous def yëpp ñu koy fa def jeunesse bi di def pour bëgg lu avancement bëggu tam la jeunesse de Ndiafat, toute la jeunesse de Ndiafat, nous avons un complexe d'infériorité devant qui que ce soit avons la jeunesse de nous am un complexe d'infériorité au niveau de la jeunesse de Ndiaffate

yaakaar naa ne wàllaa def nañ ko fekkee woon en 2014 xam ngeen ko ñun xam nañu ko difficulté am na pour ñëw waaye gënoon naa am difficulté ndax boo doon dem tey ñëw tey wàllaa def ànd ak sa doom diñ ko rawee 5 kilomètres parce que de sa yaay euh, waajur yi nañ ak seen sër sori soo ko mën a xuus ndox jàll li nga xam ne mooy ndaw ñi aussi mu mënuñ fee jàll xale yi tamit doon def ay kilomètres pour dem di soq wala ñuy wala yaakaar naa ne lu bëri wàññeeku na kon nag yaakaar naa ne loolu yëpp suñ ko defee ndànk-ndànk yooyu la ñuy wax ne mooy jàpp doomu golo si ñaay kon ndànk-ndànk rek bu ñu def ndànk lépp dina ñëw lépp mënut a xëy sotti électrification dañ doon wax may leen électrification dina ñëw gëmu leen ko may leen ko fur et à mesure nañu def ndànk dina ñëw c'est vrai que la localité elle est enclavée waaye nag ñun suñu wër suñu cër suñu wareef mooy désenclaver localité bi te yaakaar naa ne jéem nañ ci mais bàyyiwuñu fu ñuy bàyyee suñu sañoon mooy tey walla dem booy jógee kër waale di ñëw walla dem doon walla dem nga jaar tali bu ñuul loolu moom mooy suñu objectif loolu mooy suñu ambition parce que fierté la ñun ëllëg ñu jaar si yoon boo xam ne yoon bu mucc ayib la ne ñun kat fii ñu nekkoon ñoom ñoo ko defoon parce que duñ fi sax fii kenn sax fi dañu def le tey la politique ëllëg dañuy def leneen doon nañ def avant avant la politique am na lu ñu doon def tey ñu ngi def la politique suba dinañ ko bàyyi def leneen kon nag nañu xam ne rek zone bi moo ñu ñor commune bi moo ñu ñor.

parce que suñ sañoon en tant que leader buñ ñëwee si zone bii tey buñ ñëwee lamp yëpp di rey rey partout mais nak ndànk-ndànk si la lépp di ñëw yaakaar naa ne ñëwoon nañ fi ngeen wax maternité ma vous avez tout à fait raison parce que lu mel ni wàllaa dex ñu di ambulance def ko fi tey yaakaar naa difficulté yi ngeen pour évacuer des malades dañ na tey yéen a heure bu nekk yéen a évacuer malade nu mu leen neexee loolu ko indi mooy ambulance di ñu indi tey ñu ne maternité ñu tabax maternité avant avant cela defoon nañ réflexion li nga xam ne moom mooy poste de santé bi construire nañ maternité dinañ construire leneen ak leneen ak leneen la semaine dernière la fi ministre waroon ñëw mais moom empêchement ñu mun ko report ñu mus ko muñu ko reporté ba incha allah rabi début janvier mu doog a ñëw damay wax ne yéen waa Wàlla dex na seen xel dal la jeunesse de Wàlla dex je suis avec vous je suis avec la jeunesse de Ndiafat je suis jeune comme vous te li ma bëgg mooy développement de cette localité te yaakaar naa ne ñu ngi si dox ay joogo yu sori stade fonctionnaire la ñu lancé mots ah, pour un coût de 366 millions loolu du caaxaan su ma koy def pour la fierté de la jeunesse de Ndiaffate pour jeunesse bu ñu génnee ëllëg am complexe devant qui que ce soit loolu nag dama bëgg ngeen comprendre il faut faire la politique mais de le faire autrement de le faire autrement mooy dissocier wax ji ak li nga xam ne mooy acte yi te man noonu laa musi defee bu politique jotee su ma ñëwee fii su ma nu may

xeeboon nañu way am nañu fi nekkoon depuis 1960 mosu fee def dara bi ñu ñëwee lañ fi def liñ fi def kon nag damay wax bi ñëw liñu ñu lu ñu fekkoon Ndiaffate 11 villages électrifiés tay on est à presque 60 villages léegi mu jot les autres villages sont en cours kon xel war na dal comme village yaangi en cours na seen xel dal ngeen xamné ne waxu dëgg way yàq na xel bu leen nangu rek ku ñëw rek keuf leen am na lu fi jaaroon élection locale yi ñëwoon nañ di leen dig des merveilles yeneen i borom yeneen leen di gisati déedéet bu fi dëj amé bu Aïssatou Ndiaye yónneewul wala ñewul du ngeen gis keneen bu fi xew amé bu Aïssatou Ndiaye ñewul wala yónneewul du ngeen fi gis keneen kon loolu rek exemple la doyna na Doudou Barne doyna borom xel. on a un candidat on avait un candidat muy le président Macky Sall comme li may wax ñun moom lañ bëgg moom lañ gëm parce que moom lañ xam suñu enfant suñu jeunesse yëpp président Macky Sall lañ ko defal kon suñu yegsee fi tey moom mu xool intérêt Sénégal xool li nga xam ne mu ngi ñu wër muy tey fépp di jàpp fépp di jaf-jafi tay mu gis ne Sénégal jàmmi Sénégal moo ko gënal tey leneen Sénégal jàmmi Sénégal moo ko gënal intérêt boppam mu ne kat am droit présenté wu en 2024 waaye du ma ko def ndax bëgg naa Sénégal am jàmm du ko def parce que bu may jël Sénégal dama ko fekkoon si jàmm kon bëgg naa bàyyi Sénégal ak si jàmm ñu gis li mu def dans le monde rural yéen xam ngeen ko muy les bourses familiales fii bu ma fiy ñëw benn école zéro clôture moo fi nekkoon zéro mur de clôture tey toutes les écoles primaires sont clôturées benn ba école CM sax clôturé naa ko te du compétence su mairie benn CM moo fi def mooy CM de vélo te incha allah rabbi nañ ko dinañ ko clôturer parce que xam nañ ne bu ñu ko defu tam keneen du ko def du suñ compétence mais dinañ ko def ndax suñu njaboot ñoo fay jàngi fii tam lu ñu bëgg mooy école bii duñ ko ñu ngi koy ñaan su xajee si budget bi am ngeen ay conseils municipaux yu fi jóge dem. dinañ clôturer terrain de le terrain de Koutal ak terrain bi nga xam ne moom moo nekk Wallaadex parce que su si xajee incha allahu rabi bu xajul si budget ren tam dinañ ko dugal incha allahu rabi si budget bi déwén incha allah loolu suñu priorité la parce que suñu sañoon jeune bu nekk fi nga nekk nga daan nekk dans très bonnes conditions di leen wax ne rek incha allahu rabi candidat bi nga xam ne mooy le candidat Amadou Ba le président Macky Sall proposé ko ñun nag yaakaar naa ne le monde rural le monde rural li ñu war a prôné mooy la continuité la continuité mom la wara parce que gis le président Macky Sall limu def à travers des pistes de production à travers l'électrification rurale à travers les bourses familiales ainsi de suite ainsi de suite bëri na ménager ménager des femmes gis nañ nan ni le président ni mu ko allégé kon war nañu gor jàppante doon benn xam ne yëf yi du rek xiro ŋaayoo yëf yi du wax rek waaye yëf yi ay jëf la